asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci ndigalul sëriñ Muntaqa Mbàkke xalif général kullu murit yàlla na fi yàgg lool te ànd ci ndigalul sëriñ abul baraka xalifa cheikh Mouhamadou Fadil Mbàkke ibnu cheikhul xadim ak ci turu jëwrinu kër cheikh Mouhamadou Fadil di sëriñ Mourtada Mbàkke Fadilu sëriñ Moodu Seck Taqiyullaha ibnu sëriñ Alxaaji Fàllu Seck euh, Taqiyullaha moo leen di yëgal ab liggéey bu ko sëriñ Abul Baraka euh, moom Cheikh Mouhamadou Fadal sant muy am ruuj euh, ca tool ya nekk ca Madina mbooba ci wetu Kolobaan Saalum mu war a doon talaata le 8 juin 2021 yemoo ak euh, ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci euh, kori wi ñu nekk euh, Serigne Modou Seck Taqiyullah nee na mu ngi ciy woo képp koo xam ni ab jullit nga rawatina yoonu murit di ko yëgalit way juróom wi nga xam ni xaritam la di soppeem di léppam di alxaaji Fàllu Jóob ca Gabon Eh, di ko yëgal it waa kër gi nga xam ni mooy kër Serigne Modou Cheikh Taqiyullah ka ca bokk bopp jaboot ga di Serigne Saliou euh, Seck ak waa kër Soxna Mariama Kunta bintu xaadimu rasul euh, ka ca bopp njaboot ga di soxna maam Faati Mbàkke Nayda euh, bintu Serigne Cheikh Ahmadou Mbàkke Gaynde Fatma waa kër soxna Astu Mbàkke Kajoor bintu xaadimu rasul ka boppu njaboot ga di Serigne Muudu Mbàkke Farmata moom alxaaji Serigne Abdul Wadoot Mbàkke waa kër Serigne Afiya Ñang ka bopp njaboot ga di uh, sëriñ alxaaji Mouhamadul Mahmoud Ñang ak jëwrinam ji uh, di sëriñ xaadim ñang waa kër sëriñ aafiya buso ka bopp njaboot ga di sëriñ alxaaji fàllu buso ndumbe waa kër sëriñ ibrahima buso ka ca bopp njaboot ga di sëriñ alxaaji buso ak way juróom bu baax ba fa nekk di xaritam di uh, soppeem di léppam moom itam di sëriñ fàllu buso abdu xarija Euh, di ko yëgal it mbokki euh, taalibe yi nga xam ni ñoo euh, fasante ko gox-goxaan yi ci biir réew mi rawat rawatina it dëkkandoo yi nga xam ni ak àndi jàmm yeeg soppe yeeg xarit yeeg wóolëre yeeg ñëpp bàyyiwuñu kenn ñu dem ba Saalum Kaffrine jëwriñ dafa nekk di Serigne Omar Siñaan Murid Saadix njabootuk Serigne Alhaaji Serigne Ali Alhaaji Ali Sañaan Euh, Nguy Mouride Serigne Ibrahima Ndaw euh, Gubaak Serigne Ibrahima Lum Njóoñik Serigne moor Taala Cissé Bagana Serigne Nguur Jabba euh, Cissé Ndongo Serigne Maam Moodu Ndaw ji Euh, góor ji Serigne Moustapha Sagnane euh, ngóor ji leen euh, Serigne Ibbu Cissé Afiya Murit Serigne Modou Bousso Wilane Serigne Ali Cissé ca Touba Saloum ngëtu Parba bokk ci dëkk yooyu ñu yëgal liggéey bi di ka fa nekk jëwrin di Serigne Keba Wilane ak Serigne Makhtar wilaan Kaolack sa sanci Mor Soxna Euh, sëriñ euh, Taala Njaay moo fa nekk euh, gent guy sëriñ Fàllu Sañaan kër Moodu sëriñ Taala Ndaw Nganda sëriñ Moussa Cissé di ko yëgalit sëriñ Maxtaar Sow jëwrin sëriñ Abdul Aziz Fall Tilala ñu ngi koy yëgal liggéey bi ca Kaffrine kaanuma boo yéen sëriñ Naar Booy mirina Alxaaji Seex Siise moom itam di jëwrin euh, foofu ca Mérina ñu ngi koy yëgal liggéey bi ak njabootu waa Mérina gépp njam njama euh, kolong Abdoulaye Sañaan euh, moo fa nekk jëwrin Sooto Sëriñ Daam Salaan Kër Laayin Sëriñ Daam Sañaan moo fa nekk moom tam Euh, euh, euh, Serigne daam Salaan moo nekk Soota Kër Layin Serigne daam Sañaan moo fa nekk Kër Ousmane Serigne Tamsir wilaan boroom Faas Touba jaak Touba Diak sëriñ Tamsir si Seen moo fa nekk jëwrin ñu koy yëgalaale imaam ba di Serigne Modou Ngom Kam Diak Serigne Aliou Sarr ak njaboot ga fa nekk yëpp Daaru Diak. sëriñ Modou euh, Sène Mbaalox sëriñ euh, Cheikh euh, Diouf Ngunjaan sëriñ Aliou Faye jëw moo fa nekk jëwrin sëriñ Mbacke Madina sëriñ Aliou Faye moo fa nekk jëwrin sëriñ Mbacke Madina ñu ngi koy yëgal liggéey bi Dakar sëriñ Khalifa Diop Mbacke bawal sëriñ fadilu Sow ak njabootuk euh, waa euh, Sawen googu yëpp ñu ngi leen koy yëgal euh, Touba Serigne Fadilou Ndiaye Midadi Serigne Ngunda Fall moom Serigne Basirou Fall alquran di xalifa ba ñu ngi koy yëgal moom itam liggéey bi di ko yëgal Serigne Djili Fall moom Serigne Modou Abdoulahi Fall Ndar di ko yëgal it Serigne Mame Balla Sylla ca. Sylla Wunte ak Cheikh Basirou Sylla di suñu wëlëre moom itam sëriñ bi nee na mi ngi koy yëgal liggéey bi di ko yëgal sëriñ euh, Ali euh, sëriñ Ali Fall jëwrin euh, sëriñ Touba ca xombal mu mel ni kon eh, jëwrin yii la sëriñ bi eh, eh, tànn ngir ñu fas yéene waaj ànd dem ca liggéey boobu nga xam ni moom la kilifa gu baax gu màgg gu tedd gi di xalifa sëriñ Fallu sëriñ bi nee na na ñëpp waaj ñu noo ko nañ ko daan defee jëwrinu liggéey bi nag ki nga xam ni moom la doxale lépp ci digganteem ak euh, euh, képp koo xam ne fas nga yéen a ànd ak moom liggéeyal Serigne Fallou kooku moo di Serigne na Seck moom la euh, teg lépp ci loxoom mooy jëwrinam waaye xam ngeen ni faaw ñu jox kàddu ñi nga xam ni mooy magi taalibe yi ak kàdduk bokk yi ak kàdduk dongay Baye fal yi kàdduk bokk yi nag ñu ngi koy jox Serigne Mourtada Bousso moom sunu baay Thierno Bousso bu noppee ni dox sëriñ bàyyi Fallou Ndiaye eh, ci mag yi eh, donga yi mu soññaale waa kër gi yëpp eh, bu noppee ñu doo ko jox sëriñ Alhaaji wilaan ci kàddu ndongo yi Baye Fall. tey jii ñu ngi fii ci kër sëriñ Fadilou Seck Taqiyullah ci teewaayu xalifaam sëriñ Mouhamadou Seck Taqiyullah ci ndigal loo xam ne nii jóge ci kër si Amadou Fadal sëriñ moom si Amadou Fadal ñëw ci kër sëriñ Fadilou Seck Taqiyullah te ndigal loolu bu jógee kër sëriñ Fallou rek. ñëw ko sëriñ fàddu sekk taqi laa day mel ne ndigal lu jógee ko sëriñ fàllu ñëw ci soxna Mariama Kunta kon loolu moo waral jotaay yi nga xam ne moom lañu fi am tey di ko wootee muy liggéey boo xam ne liggéey ruuj la ma koy def ci Madina mbooba ca baaxoo koo def ñu tàmbaloon ko at yëpp kon ñu ngi ñaan suñu borom mu def ci ndam ci àgg ci mu war a doon incha allah talaata dëppoo juróom-ñetti fan ci weeru euh, juin bi ñu nekk dëppoo ñaar fukk na ci weeru kori bi ñu nekk sëriñ Modou mi ngi koy yëgal mbokk yëpp. ku yëgal njabootu soxna Mariama Kunta yépp ku tudd ko sëriñ Fàddul tudd ko soxna Awa Buso soxna Awa Buso mook sëriñ Afiya Buso ak sëriñ Ibrahima ñoo bokk lépp kon ñu ngi ko yëgal njabootu sëriñ Afiya Buso yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di ko yëgal it njabootu sëriñ Ibrahima Buso yëpp ak jigéen mag ak waaye nag njabootu Afiya it sëriñ Afiya ñang njabootu alhaaji Modou Mamoun ñang njabootu sëriñ Xaadim ñang ak sëriñ ak mbooleem ñi ñu bokkal soxna Awa Buso na ko noonu la ko yëgalee mbokk yi nga xam ne ñoo nekk Kër Ñang ku ne sëriñ Modou Seck taqiyullah da nga dégg waa Kër Ñang njabootuk sëriñ Modou Xari Ñang ak mbooleem njabootuk sëriñ dëkk ñan ak ñi fa aju ñëpp mbokk yëpp ñu ngi leen ko yëgal di leen séentu ci liggéey bi di ñaan it ñu ànd ko ak ñoom niñ ko baaxoo ànd ñoom ci suñu borom def ci ndam te ñu dee ngërëmul sëriñ bi ndigal nag bu jugee ci kër si Amadou Fadal ñëw ci kër soxna Mariama Kunta euh, dana ne ndox bu bàyyiwul yoonam la rek ndax ku nekk xam na ne soxna si Amadou Fadal ak soxna Mariama Kunta ñoo bokk benn waajur ca soxna ma Mariama Kunta moo meññi njaboot gi yëpp mooy weññi soxna mbenn si la meññi sëriñ Fadlu Sekk taqillah kon ni ko sëriñ Mamoor waxee liggéey bi jëwriñ sëriñ Seexuna Sekk ak moo la ko ànd ko mbokki taalibe yëpp ñu ngi koy soññ ñëpp di ko soññ mbokk yëpp di leen ko yëgal ñu teew ci ca ànd kook ñoom fas yéene ko ànd ak ñoom incha allah ba mu àgg ci jàmm ba ni ko sëriñ bi bëggee xolam sedd ci yàlla def nañu ko yàlla nañ ci àgg ak jàmm ca ndeyjee ngërëmul suñ tubaa ca suñu moom def mu def yoonu jàmm ñu dem teeg jàmm ca dellusi teeg jàmm ca lépp sedd guy ci ànd ak tawféex bi barakat ma rasul kon ñi ngi koy yëgal ñëpp te séentu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah bokki jullit yi bokki taalibe yi acca murit laay jëkk a wax acca murit acca murit ndigal ñëw na ci fam baaxoo joge ñëw fi mu daan ñëw muy kër sëriñ Fallu ñëw kër sëriñ ma sekk taqi loolu yàgg na am te yu demee nii ñaare bu amaan nit ñi dañuy wax ne delloo nga bàttu ba ca ndaa la waaye lii moom dolli ndox ci ndaala la dolli ndox ca ndaa la la suñu aboo def kon maa ngi soññ sama bopp tey soññ mboolem jawrin joo xam ne ji tudd nañ la fii tudd sëw tur fa nga nekk waxuma dëkk ba nga nekk tund wa fexeel ba soññ ñépp ñépp kenn ku ci nekk na jàpp ne moo war a soññ ku dib taalu bi na ñépp waaj ñëw na ñépp waaj ñëw ndigal moom ku ko jëfee danga am ndam kon nañ ñëpp ñëw ñu liggéey liggéey bi bu sëñ bi amee lim bëgg ñu nit liñ bëgg daañu ko am kon nañ ñëpp jaajuwaat fedd la laxasaay yi ñëw ci liggéey bi ñu liggéeyal ko sëriñ bi ndax xam ngeen ne kër sëriñ Fallou yaatu na de suñu aboo ñàkkut kum liggéeyloo de am na kum liggéeyloo kon suñu tànnee bëgg ñu liggéeyal ko fa bëgg ñoo dimbali rek a tax mu def ko kon na ñépp ñëw ñu liggéeyal ko liggéey bi na ko bëggee nit nag da daan def bu liggéeyee ba noppi ñu ne ko jëf waaye ñun suñ aboo ñoo koy wax jëre jëf ci liggéeyloo gi ñuy liggéeyloo ndax bëgg ñoo dimbali rek tax mu def ko kon ñoo ngi soñ ñëpp góor ak jigéen nag bu kenn des ku mën a ñëw na nga ñëw ñu liggéey liggéey bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah di soññ sama mbokki Baay nga xamante ni ñun ñoo nekk ci kër sëriñ bi doon Baay Faal yi di leen wax ne rek sëriñ bi moom wàcc na li ko war moom mi ngi ci ñun ñoo des li ko war moom def na ko ñun ñoo ñoo des li ñu war a def ñun moo des kon nag nañ ci gën a góorluwaat te xam ni kat ndigal moom jëfe mooy santoo yàlla dogal na daan nañu digal ñuy def wala ñu daan jéem a def kon tey jii nañ jéem comme nañ ko daan jéeme ndax te kat ndama mooy sunu ndam. moom woowut kenn ni kaay jébbalu ñun ñoo ko xool ba mu doy nu ñoo jëbbal ko suñu bopp kon nag bu ñu santee amul defe naa waaye nañ gën a góorlu gën a soññ suñ bopp kenn ku ci nekk na fas yéene tëj këram ba liggéey bi egg waaw amut sama doom ji dafa ndaw amut sama ay jigéen laa yor nañ boole tëj kër yépp ndax ñun ñoo wax ne ay Baay Faal lañ kon nañ nañ ko jéem a jaayante sëñ ab dërëm warut a dem ci tool yi gaaswal ba ca war a dem matt ma ca war a dem xorom sax waru koo jënd ndegam ñun ñoo ne ay Baay Faal lañ nag kon nañ ko dëkk nañ ko loxo yi nañu gën a ñaanal li ñu yéene def ci moom ñu def ko waaw ñu gën a góorlu di sant yàlla bu baax ci bam ñu boolee ci waa këram mu di ñu sant ñu di ko liggéeyal ndax bokk ci moom wallaay lancim bëgg cee bokk taxul nga doon nga bokk ci kon bu ñu ci yàlla boolee dañoo war a gën a góorgóorlu gën a gën a gën a fonkaat liggéey bi ñoo ngi so sant soñu bu baax nag sëñ Ablaye Siñaan bi nga xamante ni mooy jëwriñu Baay Faal yi sëñ Booy Euh, bàyyi lamp yu laan ñu ngi leen ñu ngi leen soññ bu baax a baax di wax ne nag seen digal la ñuy déglu euh, lépp lu ci war rek nañ wax bàyyi faale jaayante ko ñu def ko waaw fas yéene nañ ko tamit nag waaw ñoo ngi sant bu baax sëriñ bi. macha allah euh, dégg ngeen kàddu yu am solo yooyu jëm ci wooteeb liggéey bii nga xam ni moom la sëriñ Abul Baraka xalifa cheikh Mouhamadou Fadel yàlla na yàgg ci jotaay bi yàgg ko jiite te ànd ak wér nu ànd ak moom lépp. Euh, gis ngeen macha allah kàddu yooyu nga xam ni mooy kàddu yi bàyyi ko ci jëwriñ ji nga xam ni moom lañ teg. ci euh, loxoom ci liggéey bi di sëriñ naa Seck mu jële ko ci euh, euh, sëriñam mm, magam juram di léppam di sëriñ Modou Seck taqiyullaha ni mu séddalee kàddu yi nga xam ni noonu rek la mën a demee kàddu yi bokk yi sëriñ Motoda bu sumu sunu baay Cerno moo ko doon jàllale kàddug magi donge yi sëriñ Baye Fallou Ndiaye moo ko doon jàllale kàddug Baye fal yi sëriñ Alhaaji Wilane moo ko doon jàllale man mii di seenu ndonga di seen dëkkandoo Euh, ñu bëgg maa dimbali euh, jox ma ma doon ko séddale maa ngi ciy santaat Serigne Fallou Mbacke mi nga xam ni moo ma dimbalee loolu ni ko bàyyi Fallou waxee dolli ndox ca ndaalal kon batt ba jugu fa aboo Abou jërëjëfati sëriñ abul baraka jërëjëfati nii nga nu defal sunu waa ji yàlla na yàgg yàlla na jëm kanam ndax nun sëriñ fallu rek la ñuy bëgg di liggéeyal kon nag man personnel ci sama woote bopp maa ngi ciy mbuux waale di wax ni képp bëgg sëriñ fallu te dégg ku ne am sëriñ waaye ku jàq rek sëriñ fallu ngay def juróom-ñaar yoon mu fekk la fa nga nekk saa fa fajal la say aajo kon nag nanga gore te xam ni sëriñ fallu wooteeti na sëriñ abo mooy sëriñ fallu tam moo woo sëriñ Modou Seck taq yu la santu ko liggéey bi ni ko euh, da nga ma caa doy euh, da nga ma caa ñor danga ma caa neex ndax jëflante yoon wu njëkk rek la te bañ ko defee maag yow sama xol da caa sedd guy guy mu wóor ma ni euh, ci euh, ndimbalul sëriñ Fallou euh, bu nu wéyee di jëflante sama xol day gën a sedd moo tax liggéey bi madina booba sa màddina booba la say tool la yaa koy ruuj yaa koy bay yaa koy góob lépp lu fay def mi ngi ci sa loxo moom nag mu tegaat lépp ci loxol rakkam Serigne Cheikhouna sekk nii la yoonu murit baaxoo waxe kon mbokk yi départ baa ngi noonu incha allahu taala fii fii la ci kër gi ci kër Serigne Fallou Seck taq yi la Touba moski gaar bu ndaw xàll yu bàyyi koo jumaa ja jëm euh, gaar bu ndaw euh, tàqaloo kër gi euh, tàqaloo ak kër alhaaji Serigne Modou Mamoun Niang ci digganteem ak kër Baye Serigne Thierno Bousso incha allah talaata di la 8 juin di mardi incha allahu taala ci lañ fa yéene départ fii wutali Mad àddina booba te fasuñ fa yéen a dem di fa fanaanaan ndax buñ àggee dañoo bëgg a rukk lépp ba mu nooy ci benn fan sëriñ bi ñaan ñu wàññi ko waat allah kon ñu dëkk loxo sëriñ bi ñaan ñu waaj dem wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu